bés bu mag le 19 juin diggante Franc Ndiago bi ak Sokh xale Pikine bi da ngeen waajale seen poulain. waaw wax naa yàlla santaat yàlla rek julli ci Seydina Mouhamad sang-sang si grand combat bi préparé nañ ko ci ay weer ay jour ay weer ay semaine bañ na tey bientôt deux jours trois jàmm rek di am ñuy ñaan jàmm jooju am ñu ànd moom ba dimanche. ah ñu ànd ak euh, sunu fils ëmb ko ñaan yàlla yàlla may ko ndam naan daan ñibbi si. man de forme la tollu état bi. non macha allah bu fekkee de forme rek la moom macha allah macha allah macha allah amuñ de forme waaw parce que bu dee préparé préparé nañ ko fi ñu ko war a préparé tegu na ci yoon bu dee physique bu dee musculation mën na bu dee compétition mën na bu dee boxe mën na business nag moo koy battali parce que mbër bu ndab teen la boo àggee ca buntu mu ngay yem kon donc li des mental moo koy àggale mais lépp li war nañ suñu diggante ak moom taxaw nañ ci ba yàlla sottal na ko ñu xaar la sorsi rek ñu def ndam yàlla may nu ndam ñu ñibbi si loolu daal la ñuy ne ko le 19 dinaa la wan ne mënoo bëri. am na ci droit ah. waaw am na ci droit. moo tax. parce tam am ci bu la ñëpp ne yow ah, ma nga wax mais kon nag ngay dindi gis lu dindi na du yow kon am na droit ci ne bu la sorgee mën na la doo dara am na droit pour wax ko mais nag na ko jëfee na ko parce que wax bu ñu nee wax bu wuutee jëf rek wax dëgg tebbeeku kon li mu wax na ko jëfee su rek lamb dina neex dina gaaw kon na ko rek te sàccal na ko wax amateur yi. ñu ànd ak yar ak teggin. c'est tout ça ñu ànd ak yar ak teggin xam na lamb fo ak la lamb dafa war a defar dafa war a boole ne war ta tàggale war ta yàq ñu bàyyi ñu yee fitna ñu yee fitna na ñu bàyyi fitna ñun lamb ji moom la am ñun ñaari mbër yi suñu doom la sañ na ñoo taal combat bi nag ba mu àgg bon niveau mais nag lu ci mën am jàmm rek lañ soxla xale yi dëkk parcelle nañ ànd ak yar ak teggin xale yi dëkk ànd dëkk Pikine yar ak teggin booy fair play bëre ku yàlla may ndam nga nekk say bokku ñibbi loolu daal laa doon ñaax gars yi xam ne ñooy somateur yi et les supporters. merci beaucoup Père. jërëjëf merci te yàlla doon na allahumma amiin jaajëf jërëjëf merci. Aïcha ñu ngi ak coach Lato coach maa ngi lay bëggee. maa ngi lay bëggee yow bu baax. mbaa yaa ngi si jàmm. sant yàlla bu baax. le 19 mel na ni ñaari fan moo ci des fan la Mor Alou mbër mi toll. waaw pare nañu lépp daal. sant yàlla bu baax ñaan yàlla ñu egg si bis bi ñu ngi koy ñaan yàlla daal egg bis bi jàmm ak salaam euh, ñaan yàlla yàlla may ñu ndam. ngeen di bëreeg mbër mu dangereux muy Sokh ñeme Franc trop. mbër la Franc mbër la sport la sport de lutte la dañuy uti muy uti ñaan yàlla yàlla may ndam. noonu la ñu waajalee seen poulain. si lépp si doole. si physique si cardio si lépp pare nañu si lépp loolu laa bëgg laajte dañ koy jox suba boobaa. sox ne ko le 19 dinaa la won ne mënoo bëri. waxu mbër la du ma si sori waxu mbër la waxu mbër kese la du ma si sori loolu laa la bëgg. rek nee na moo ko dàq a bëre loolu waxu mbër la rek Franc xam nañu mën na bëre wala mu bëre Franc xam nañ ko sport la ñaari xale ñooy bëre. man maa ngi ñaan yàlla sama yàlla may ma ndam sama mbër def fair play que le maire gagne yàlla ma sama mbër daan muy franc man ah wa waa Pikine waa Pikine taxaw nañ ci gannaaw soq 200 pour cent waa parcelle ñëpp taxaw si gannaaw franc waa parcelle ñëpp génn. yaa ngi est-ce que yaa may dégg parcelle ñëpp génn franc mooy seen doom mu am bis ñëpp ay génn jàppale ko ñaan yàlla yàlla may ko ndam. mais mais waaw waaw sama cameraman nee na Franc daan na la jël bu maa ko njëkk a daan kenn wanew ko maa ko njëkk a daan kenn wanew ko ñu wane bu ma daan mais loolu du yoon teg la ko. maa njëkk a daan Franc maa ko njëkk a daan. nan nga ko daane. non mais benn clé na ma dem def. ban prise la. te prise bi xam naa ko. mais dama ko def ma bàyyi ko mu daanu ma jëlaat ko fois bi mu koy jël mu defaat ko. mais ma yéex a gis tànk bi moo tax a rëpp mais bi bi ma ko daal kenn wane ko lu tax loolu. da nga ko wan ne jum màgg jum jënde lu màggat màggat. ma ko jàngal. te sa ngelaju bu ba léegi maa ngi ngelaju. benn paa dafa jàngal benn mbër mbër bi daan daan daan waa dëkk bi yëpp yaa ngi dégg daan waa dëkk bi yëpp ñëw ci paa bi ne ko yow rek yaa des ci dëkk bi kaa ñu bëre ñu jàppante paa bi rof ko caxabal daan ko mbër bi ne ko mais mais góor gi jàngaloo ma woon na mu ne ko bii pour man la lu boobu pour yow nga def Franc bi mu def boobu pour man la <laughs> mais nag maa ngi nuyu sama kilifa Aliou Dione de passage maa koy nuyu li ma doon tey moom la jërë ngeen jëf. ay jël le 19 ñu jëm ci bis bu mag parcelles yëpp di waaj di waajal seen doom di di waajal seen jarbaat. waaw waaw asalaamaaleykum dama la nuyu waa Sénégal yëpp nuyu waa parcelles yëpp 1 waaw xam nga ñun moom yàgg nañ ci bis bu mag te kii bis bu mag la ci ñun. pour le 19 moom waaj nañ ko nañ ko war a waajee façon yëpp moralement physiquement mentalement lépp waaj nañ ko ba pare le daal moo ci des incha allah bu neexee yàlla. muy bëre ku danseur ko muy soq. waaw soq champion mais euh, waaye ñii dundu xam nañ sax xam nañ kuy franc xam nañ kuy franc soq xam nañu kuy franc. ragal naa ni euh, bés bu la 19 dinañ gis lu ñu mës a gis. daañu ah, gis lu ñu mës gis. waaw na. Ah, baax na rek xam nga ñu ngi dokkawante di wax waa Pikine jóg na 200 pour cent ak nangam nangam dañoo yokk pression Sokh sax ba ci ma gis dañ koy yokk pression mais Sokh moom xam na li koy xaar. rendez-vous le 19. mu ne. rendez-vous le 19. waaw le incha allah Fra daan Sokh jël bu rëy.